الحمد لله الذي كتب على نفسه الرحمة وعامل عباده باللطف فضلا منه ونعمة سبحانه هو أرحم الراحمين وأشهد أن لا إله إلا الله الرحمن الرحيم واشهد ان سيدنا محمدا رسول الله ذو القلب الرحيم اللهم صل وسلم عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما مبكي تيليسبكتاتور سفينه تي في سين بوك سين قريت امام ابو بكر مبوج مو نيو اك يين سين اميسيون مكارم الاخلاق دي لن نيو di leen ñaanal jàmm ak barke ak yërmande ju jóge ci yàlla jëm si ci yéen di ñaan borom bi tabaaraka wa taala itam mu feccil ñu suñ lamiñ ubbil ñu suñ xol te yéen itam mu ubbil leen seen noppi dënn ba lépp loo xam ne wax nañ ko fi rekk ci loo xam ne day jariñee ñun ñépp ñu man ko bokk jariñoo di seede ne buur bi tabaaraka ko taalaa ñu ngi koy sant moom mi nga xam ne moo bind dogal ci ji jëmmam ji ne kuy dimbale ku bari yërmande la ci jaamam yi moom la jëfante itam ak i jaamam ci ñeewante te loolu def koo def rekk ci mbaaxam ak ci ngëneelam tudd nañ sellam ba kooku day moo yërëm way yërëme yi seede suñu sang ba moo muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom mi nga xam ne moo doon boroom xol bu yar fees dell ak yërmande yal na yàlla dolli xéewal ci moom te musal ko moom ak ñoñam aki saxaabaam ñi nga xam ne yàlla moo laabaloon seen xol duy ci bam fees dell ak yërmande mu génnee ci ñoom lépp luy soxor lépp luy iñaan lépp luy xat-xat moo tax ñu dundoon yërëmante ci seen biir bu ko defee ñu dund ci texe ak bonheur yal na yàlla gërëm leen moom mi nga xam ne mooy boroom asamaan ak suuf ñooñu la yàllay tàgg ne ulaayika ala hudan min rabbihim wa rahma wa hudan min rabbihim wa ulaika humul muflixuun ñooñu yonent boobu ak saxaabaam yooyu nga xam ne ci mbaax ak yërëmante lañ doon dund yàlla ne ñooñu day ñoo nekkoon ci njub bu jóge ci seen borom waaye itam mooy ñooy woy texeña bu ko defee yéen mbokki téléspectateurs yi ñuy dellu ragal yàlla te delluwaat ci moom te itam ñun ñépp ñuy xoolaat suñuy jikko xool suñu bopp dellu tuub tuub gu dëggu bu ko defee ñu fexe ba génnee ci suñ xol lépp loo xam ne mooy aw ay ak iñaan ak bañante ñu weccandi ko remplacer ko bëggante soppante yërëmante ndax dañuy gis ne yërmande moom jikko la joo xam ne bokk na ci jikko yi gën a rëy ci lislaam te itam mooy diine li nga xam ne moom am na ci cër boo xam ne leneen amaatu ko ci ndax yërmande buñ ko xasee ba wax rekk dafay dajale mboolem anamu yiw yi te itam day tax yitam nit ñi bu yërmande amee rekk képp ku nekk day def li ko war te day matal ak xam bi nga xam ne moom la yoral nit ñi waaye bu ko defee nit ñi itam ñoom itam delloo ko àq jooju moo tax moo gën a rëy ci mboolem jikko yi nga xam ne doomu aadama daf koy jikkowoo te itam nag mooy jikko joo xam ne moom rek moo mën a maanaam assurer dimbale bépp peuple moo xam peuple boo xam ne rek ay nitam dañoo yërëmante ku nekk yërëm sa moom moroom societé booba day nekk societé boo xam ne jàmm lay doon bëggante lay doon dimbale leen lay doon déggoo yitam day am ci seen diggante ñu gis ne borom bi tabaaraka wa taala dana doye rek ñu gis ne yërmande lu am solo la borom bi nga xam ne moo ñu bind sax dafa ne kataba rabbukum ala nafsihi rahma annahu man amila minkum suan bi jahalatin thumma taaba min ba'dihi wa aslaha fa innahu ghafurur rahim borom bi tabaaraka wa taala mu ne moom ci boppam moo bind ci boppam maanaam moo dogal ci boppam ne maanaam daal dafa war a yërëm ay jaamam mu ne képp koo xam ne danga nga jëf ñaaw téef te ba nga koy jëf day da nga réere woon sa diggante ak sa boroom xam ne moom war nañoo jomb di def lu ñaaw walla lum ñu tere jëme ko ci moom moo tax nee na ku def loolu te bang koy def ci rir rek ka taxone nga def ko nee nga tuub gannaaw loolu ba pare dab dabatal ko ak yu yiw ak yu bax da nga fekk ne yàlla ku bari njéggal la waye ku bari yermane la mu waxat fenen ne wasiat manam wa rahmati wasiat kull shay fa sa aktubuha lilladina yattaquuna wa yu'tuuna zakata diina hum bi ayatina noonu mu ne sama yërmande day moo ëmb lépp moo gën a yaatu lu mën a doon xaj na fépp weesu na fépp waaye nag maa ngi koy def ci ñi nga xam ne maanaam dañ maa ragal di def samay ndénkaan samay ndigal di bàyyi samay tere ba pare itam nag li yàlla may ñu ciy dimbalee di ci génne azaka di ci jox seen moroom yi nga xam ne seen loxo jotul seen gannaaw ñooñu day nee na mooy ñi nga xam ne dañoo gëm samay aaya waaye itam mooy ñi nga xam ne dañ maa gëm ñu gis ne kon yërmande day jikko la joo xam ne ju noobul la sentiment la boo xam ne itam ci nit ki boo xam ne bu rafet la yërmande moom dafay jur yiw dafay jur yitam delloo njukkal te itam dafay ñaax jullit yi ci dimbalante ak ku nekk sa bopp sa moroom gënal la sa bopp te itam yërmande mooy ji ci jëmbat ci biir xol yi maanaam bëggeel rafetal cofeel bëgg lu baax te itam ci yërmande rek mooy tax ñu mën a réaliser li nga xam ne moom la ñu yàlla wax ci alxuraan ne innama almuminuuna ixwatun fa aslixu bayna axawaykum wattaqu llaha laallakum turxamuun borom bi daf ñu wax ne jullit yépp way gëm yépp nañ jàpp ne ay mbokk lañ ay frère lañ ay sœur lañ mu ne na ngeen rafetal seen mbokkoo googu te ragal yàlla bu ngeen ko defee rekk yàlla yërëm leen kon nga gis ne mbokkoo googu nag pour ñu man koo def ni ko yàlla bëgge il faut yërëmante am suñ diggante ndax nit ki boo ko yërëmee doo ko teg lum àttanul doo ko wax lu ñaaw doo ko def lu ñaaw doo ko yéene itam lu dul jàmm moo tax yërmande daal ñu xam ne bépp société boo xam ne dañoo dajaloo di yërëmante ne la wóor ne ñoom danañ bokk ci maanaam société yi gën a féete kaw waaye nag nee na bépp mbooloo walla ab réew walla ab dëkk boo xam ne dañoo dindi yërmande ci seen biir rekk ba pare remplacer ko dëgër ak wow ak soxor nee na lu dul ne rekk aw ay rek mooy nekk ci seen biir moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon ñaax nit ñi ci ñuy dawal yërmande ci seen biir ci seeni wax ak ci seeni jëf moo tax mu ne man laa yar yarxamin naasa laa yar llah ya mu yonent bi nee na képp ku dul yërëm nit ñi yàlla du la yërëm mu waxaat ne arrahimuuna yarhamuhumu rrahmaanu irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama mu ne woy yërëme yi ci àdduna yàlla mi nga xam ne moo yor yërmande dana leen yërëm mu ne dëgg nangeen ngeen yërëm ñi ci suuf bu ko defee ki nekk ci kaw te yor yërmande te bari yërmande yërëm leen yonent boobu sallallahu alayhi xam ngeen ne moom moo doon exemple ci yërmande yàlla wax na ko ko budul benn du ñaar moo tax mu ne man dey damay dugg ci julli ma fas yéene bu ma taree faatixa teg ci saar wu gudd nee na fa asmau bukaa asabiyi fa atajawwazu fi salaati mimma alamu min shiddati wajdi ummihi min bukaa'ihi nee na ma commencé rek ba tari faati rek bi muy daano rek ma dégg benn xale buy jooy ca kaw yaayam nee na ma daa di jël saar wu gàtt tari ko lu tax ndax nee na xam rek maanaam jooy yooyu ni mu mettee ci xolub yaayam ma yërëm yaay ja bëgg gu julli gi gaaw jeex ba mu mën a nax doomam jooju bon nag yàlla ci boppam moo bëgg moo sopp ci ñun ñu yërëmante ñun mbindeefam yi mu ñaax ñu ci yërmande jooju day maanaam yàlla dafa bëgg waxuma ñu yërëm sax doom aadama yi rekk waaye mboolem yeneen mbindee fi yàlla yi muy bàyyi ma yi walla picc yi ñoom sax yàllant bi mag ñu ci wax ne yàlla bëgg nañu di leen yërëm boo demee ci buxaar yi wa muslim xadis boo xam ne abu hurayra moo ko solo mu ne bay na baynama rajulun yamshi bi tariqin istadda alayhi al atashu mu ne bi nga xamante ne am na benn waay joo xam ne day daf doon dox ci aw yoon nee na mar wu metti dab ko nee na muy dox ba àgg ci benn teen daa di wàcc ca biir tànq ca naan bi mu génnee rek mu génn gis benn xaj ma ngay génnee lamiñ wa di xëxët ngir mar mu daal di wax ci sama xelam ne kii de xam naa ne mar wi ma jàppoon moo ko jàpp nee na mu daal di waññeeku duggaat ca teen ba jël dàll wi mu soloon duy ko ak ndox génn jox ko xaj bi mu naan ba màndi fa shakara allahu lahu fa xafara lahu yonent bi nee yàlla daldi sante sant jaamam boobu ci yermane ji nga xamne amna ko ci mbindeefam bi muy xaj bi yàlla geureum ko ca daldi koy jegal mboolem bàkkaar bu masona def te loolu bim ko defé nak yonent bi sallallahu alayhi wasallam bim ko waxe rek qalu ya rasul allah wa inna lana fi hadihi albahaim la ajr فقال في كل كبد رطبه اجرون ñu ne waa yonent bi kon bàyyi ma yi sax liñ leen di defal di leen xontu ak di leen may ndox ak yooyu dañu ci am tiyaaba yonent bi ne leen waaw waaw bépp bàq goo xam ne gu tooy la nga dugal ca dara rek na wóor ne loola yàlla dana la ca bindal tiyaaba yonent bi di ñu wonaat xam nga kooku la ko dugal àjjana tax yàlla jéggal ko ndax jéggal moom bu amee rek àjjana am na moom mag ñuy wonaat keneen mu ne ci beneen xadis boo xam ne abu hurayra moo ko soloowaat an umar ibnu umar mu ne uzibat imraatun fi hirratin sajanat haa xatta maatat mu ne yàlla day mbugal na benn jigéen ci muus moo xam ne xëy na dafa nekkoon ci kër gi la jël ko wala daal waaye daal mu xëy suba rekk jël ko wutu kaaf rek dugal ko ca tëj ko nee na bàyyiwu ko mu ko mu lekk mayu ko mu naan mu nekk fa di souffrir di jooy ba dee mu ne loola moo tax fa daxalat fii hannaar nee na loolu moo tax yàlla yóbbu ko safara ndax rek am muus nga gis ne kon yonent ba sallallahu alayhi wa sallam joxuñu sax exemple ci nit waaye ci xaj lañu jox kenn yërëm ko dem ca àjjana mu won ñenu benn muus nit xoqatal na ko fitnaal ko ba mu faatu yàlla yóbbu ko safara kon nag waxuma laag ku sonal nit bu ko defee ñu gis ne daal yërmande moom jikko la boo xam ne bu rafet la waaye itam yonent bi yàlla sax tagg na ko ci ne bil muminina raufur rahim bi muy ñëw ca laqad jaakum wax ne yonent bi muhammad sallallahu alayhi wa sallam ku bari yërmande la ku bari ñeewante la ci jullit yi moo tax dëgg-dëgg yërmande dal ci yaataayam ak ni nga xam ne noonu la baree njariñ boo tax borom bi tabaaraka wa taala moom sax day gis nga ca gannaaw wa rahmati wasi'at kulla shay'in la wax sama yërmande daal dafa yaatu ba làmb lépp lu mën a doon nga gis ne yàlla mi nga xam ne moo àdduna moom li ci biiram mulkeeg malakuut ak yépp te gisuloo képp koo gis lu mu bari bari yërmande ba nga ñee ko ci yërmandeem nga gis bàyyi ma yi nga gis ganaar sax du bëgg a teg ci cuujam weyam yooyu ndax yaakaar ne daf koy gaañ nga gis muus sax bu amee doom fu nekk ruq bu nekk dana ko ŋànk dugg fa ak moom ngir rekk yërmande ju am ci moom nga gis nit fekk ku sonn ku feebar mu fekk ko jël ko yóbbu ko hôpital jëndal ko ordonnance ospitalise ko defal ko lépp ngir rekk bari yërmande yonent bi di ñu won ne loolu lépp ma ngi jóge ci njeexitalu yërmande yàlla ndax yonent bi nee na yàlla téeméeri yërmande la am mu jël benn bi wàccee ko ci suuf képp koo gis muy bàyyi ma muy picc muy nit muy loo mën a gis rek lu mu am am yërmande ba nga naan xoola kii sax bàyyi ma la te xoola ni mu baree yërmande nee na benn boobu yàlla wàccee ci suuf moom la nit ñi séddoo ak bàyyi ma yëg picc yi juróom-ñeent fukk ak juróom ñeent yi ci des yépp yàlla nee na maa ngi ko denc ëllëg pour nit ñi nga gis ne kon li mu wax ne dëgg na ngeen yërëm ñi ci suuf bu ko defee ki ci kaw yërëm leen ku bëgg a taseeg yërmande yàlla dëgg ëllëg dangay fexe ba nga yërëm jaamam yi te nga xam ne maanaam soxor mooy mbokkum mbon te itam ngay feeñal mbañeel akuk iñaan fay woné ne kii kat borom ruh bu faible la waaye itam borom jikko ju bon la te itam lolu da fay génné nit ci da'iratu suada manam bu ñuy ñi baax ñu la ci mëna boole ku amul yërmande rek sa yu ñuy lim ñi bon rek dañ la cey boole ndax dëgër xol ak iñan da fay tektal tektal gu reey ne ki kat manam danger lay don ci société bu mana nek motax yàlla ci bopam moytu loñu soxor ak iñan ne mune alam yaani lilladina amanu an taxshaa xulubuhum li dikrillah wa ma nazala min alxaqi ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فخست قلوبهم وكثير منهم فاسقون يالا ني خانا جوتول سك تي نيغا خامن داني نغم نني ني راغال تي سين خول يي نيات سين خول يي مانام خيخ اك سين خول يي غير di fàttaliku yàlla ak di ko tudd ak di fàttaliku li nga xam ne yàlla moom la wàccee mu jóge ci moom mu ne leen dëgg na ngeen fexe ba bu leen mel ne ñi nga xam ne dañ leen a ci ñoom téere neena na soxor ak iñaan nekkoon ci seen biir ak xëccoo ak xiiroo ak ŋaayoo loola moo leen indiloon musiba yi nga xam ne moo doon wàcc ci seen kaw yàlla ne ñooñu day ñoom ñooy alfaasiquun mooy saay-saay yu génn topp bu ko defee ñun ay jullit lañ suñu diine dafa sopp ci ñun maanaam jikko ndax ki yàlla yónni ci ñun sax ba muy wax daf ne man yàlla yónniwuma ludul pour ma mottali jikko yu rafet yi bu ko defee jikko ju rafet ci ñépp la baax waaye ci ki mu gën a baax nag mooy ñi nga xam ne nit ku am naqar walla ñu tooñ la ci moom ngay ñëw mu war la koo fajal moo tax justice dafa wara a équitable maanaam dafa wara maandu du xàmmee ku am du xàmmee ku ñàkk du xàmmee xaritam du xàmmee noonam du xàmmee ñi ànd ak moom ak ki àndul ak moom waaye dafa yem war yemale ñépp bu ko defee kenn du jéem a fajal sa bopp waaye saa yoo xamante ne ñiy àtte dañuy féete boor rekk képp koo xam ne tooñ nañ la danga koy jéem a faj ci sa bopp yaa koy fajal sa bopp te loolu saa yu dikkee ci réew rekk noonoo ak xiiroo ak rayante day daa di dikk moo tax képp kuy àtte war ngay bàyyi loolu xel te booy àtte itam sa même sa biir àtte danga ko war a jaxase ak yërmande ba ki nga xam ne yaa ngi koy àtte sax mu santiir ne moom koy wax dëgg yàlla li nga def day maanaam ànd naag maandute àndu naag yërëma ànd naag dëgg bu ko defee moom loolu day yomb lool mu accepté ko bu ko defee képp koo xam ne yow itam yaa yilif ña nga yilif nga yilife leen moom itam ci rifqu mooy yërëme woyof di tàpp-tàppal ànd ak nit ñi ci dëgg bu ko defee ak nooy ndax loolu day moo gën a tax nga mëna am xolu nit ñi yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf ne jubilatil qulubu ala hubbi man ahsana ilayha wa buxdi man asaa ilayha neena xol yépp d'accord nañ ci ki nga xamne lu baax lu mu am lu mu xam lu mu man defal la fo jaar bëgg ko waye ko xamne lu bon lu mu man lu bon lu mu xam lu bon lu mu am def la ko itam mëno fexé bam bëgg la moo tax dañu war a jëfa même ki ngay liggéeyloo ñi nga xam ne yaa leen di liggéeyloo sax moo xam ca kër ga la moo xam ca société ba la moo xam fonctionnaire ba la moo xam privé la ki nga xam ne moo leen yirif dañu bëgg mu jëfante ak ñoom jëfante bu rafet jëfante bu teey bu ko defee moom ci boppam day yëg ne yow mii kat jox nga ko valeur jox nga ko respect te le respect est réciproque ko respecter rek mu respecter la bu ko defé loolu dana dak ak ak akuk soxor ci digënté yi ndax nit ki da ngay japp né rek yawmun laka wa yawmun alayka gis nga ñi nga xamné 2002 ño fi manam ca ñi andon ak président Ablaye Wade tay ji ñom ñepp daanaka kenn sax nekkatu ci ministre waxu ña ci nekkoon directeur nekkatuñ tey jii ñoom ñoo nekkaat nii nekk ñoo xam ne dañ leen a yilifaat te ñii yilife tey itam ëllëg balaa yàgg tuuti ñoom itam ñeneen wuutu leen fi ñu nekkaat ci seen suuf bu ko defee nag yow boo yàlla tànnee nga bokk ci ñi yilife te yàlla dong la neex du sax njàmbar du dara mu anna al fadla bi yadillah yutihi man yacha ngëneel moom yàlla moo ko yor moo tànn président moo tànn ministre moo tànn député mais loolu nga xam ne cër bu la yàlla jox la te yàlla dana la ko laaj ëllëg lépp loo ci xam ne war na sa diggante ak nit ñi nang ko matal te rafetal ko te ànd ceeg maandute ànd ceeg doylu ànd te xam ne gën nit ñi taxul ñu teg la yàlla teg la ca mom la neex rek mais ñi la dàq jang ngi fi ñi la gën juddo ngi fi ñi la gën lepp a ngi fi te teewul yalla moy def luko sop nga gëm ci yalla delloo ci njukkal yalla yalla borom bi taba yonent bi sallallahu alaihi wasallam dafa wax ne yalla day dafa bëgg nit kuy rafetal ci lepp te lu mu bind rek mom def na ci rafetal mu ne même bo doon ray dara nang ko ray ray bu rafet dóor ben mu waye sax bul ko xor ñooñal di tap di tàpp déedéet dafa bëgg nga jekku ko rek door mu dé bañ faa nek di souffrir manam lo xamne day lor jaan limuy lor lor dafa bëgg nga ray ko ray bu rafet mu ne bu ngeen di rendi itam na ngeen rafetal rendi ba tax yalla moko daganal ci yeen ngeen rendi man ko lek waye sax lol bu mu tax ñu ne ko waaw nu ñuy rafetala ray rendi mu ne na kenn ci yeen jël lamuy bëgg paaka ba daas ko ba mu ñaw nga xam ne bu tiiree benn yoon rekk kooka daa faatu bu ko defee yërmande googu nag mooy li génne ci lislaam moo ànd ak ngëm yàlla moo ànd ak dundiinu nit te itam comme dañ la wax ne la na nga yërëm sax bàyyi ma yi yërëm picc yi kon nit taxul ñuy wax yërmande nag du tax itam ne bari yërmande nu signifiewul ku nekk ku tooñ doo ko ne yaa tooñ ku tooñ itam doo ko àtte wax ko def ko li nga xam ne moom lañu ñu war a def ku tooñ waaye ndax loolu kët yàlla moo ne walakum fil xisaasi xayaatun yaa ulil albaab la'allakum tattaqun yalla ne neena atte atte bu jup ki togn nga won ko ne ya togn tek ko daan ki ñu togn nga jox ko akam lolu day tax ñu mëna dundu dundu gu rafet ci suñu digënté bu ko defé ñu yemale ñepp waye itam nak gis nga yalla ci bopam wax na la man sama bop dama aramal maanaam tooñ ci sama bopp ma def ko mu aram ci seen diggante bu leen di tooñante bu ko defee ñun ñépp ñu delluwaat xam ne jullit du lor mbokkum jullitam doomu aadama rekk warula lor mbokkum doomu aadamam waxuma la nag ab jullit nit ku nekk boo amee sa xàq man nga koo jël waaye nag dangay jël la nga moom la nga moomul nga bàyyi ko xam ngeen ne fan yi li fi xew ñi nga xam ne ñoo am lu leen naqari ndax nee nañ ñëng amuñu lu ñu liggéey xëy na ku jàng ba pare doo liggéey ku toll ci mën a faj say soxla doo ko mën a faj waaw kooku bu fekkente ne daf koo bëgg a wax na ko wax mu leer ña ko war a dégg dégg ko nga def say manifestation waaye nag doo fekk sa moroom ya nga xam ne yàlla dimbala la leen ba am fu ñu nekk di fa liggéey parce que tey rek dégg naa ñu ne Auchan yi doon employé na 1700 junni nit ak juróom-ñaari téeméer. bu fekkente ne dañoo xëy suba lakk Auchan yépp la fa nekkoon lépp ñu buub ko yóbbu waaw ña fa doon liggéey 1700 personnes yooyu ku liggéeyatul kenn duutu la fay koo xam ne la nga yoroon lépp lakk nañ ko yóbbu nañ ko dootoo fay nga yóbbewaat ñeneen. say moroom yu toloon ne yow te Auchan boo dem ña fay fekk daanaka kenn amu ci 40 ans ñépp jeune lañ kon nag bu ngeen meratee bu leen fekk fi nga xam ne fa la seeni moroom di liggéeyee ngeen di leen yàqal liggéey ba boo demee ci station Total yi boo demee tey case ba marché boobu sax tey dégg naa ñu ci wax ne maanaam ay sénégalais lañ ne ñoom ñu ñëw songu seeni cantine toj ko yóbbu la fa nekk loolu xam ngeen ne du mer loolu tooñ la sàcc la te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam day dafa bëgg maanaam nit ku nekk nga jël sa xàq waaye delloo ku nekk àqam bu ko defee nga gis ne dëgg-dëgg daal yu demee noonu war nañ koy moytu ndaxte dafay tardeel réew mi bu ko defee ñi nga xam ne ñoo féete ci kaw ñu yërëm ñi ci suuf bu ko defee ñi nga xam ne itam ñoo nekk ci suuf ñu jox cër ña ca kaw jox cër bi nag li koy tax a yomb mooy ku nekk gis ne yow kat lépp luy sa xàq ña la koy jox bu ko defee yow itam say devoir nga di ko def loolu mooy indi jàmm ci réew ñu gis ne nag a ah, léegi gannaaw ay jàmm comme yàlla dimbale nañ waxtaan nañ ah ki nga xam ne moom la yàlla nattu mu nekk ci kaw réew mi dëgg la am na ñu ko ne am na fot nit ñi itam am nañ fot ñépp maanaam responsabilité partagée la xam nga ku nekk da nga koy seet sa bopp ku kër rek gere ko yombul waxuma laa nga bëgg a gérer un seize millions de personnes ku xiif ne yaa tax ku mar ne yaa tax ku amul tali ne yaa tax ku amul courant ne yaa tax ku amul ndox ne yaa tax loolu ku ci nekk itam war nañ koo yërëm moom itam ah te jéem ko dimmale moom itam mu dimmale nit ñi ndax jàmm rekk ci la lépp xew bu ko defee daal ñu delloowaat xol yi xalaataat te jéem a xoolaat nu ñu jéem a yóbboo suñum réew xale yi bu ñu waxee ne maanaam France te mu jaraloon leen ñu jël ay gaal di dee ci biir ndox mi ñoom bu fekkente ne loolu dañ koo wax ba pare ne France doo dugg ci réew mi ñoom it bu ñu leen du ngeen dugg ci réew mi kon duñ mën a dem am visa ku bëgg a jàngi jàngi fa ku fa yàlla def sa wërsëg nga mën ko faa liggéey man di yónnee bu ko defee yooyu yëpp war nañ ci bàyyi xel loolu moo doon seen émission boo xam ne yéen ñi muy makaarimul axlaaq ngeen àndoon ci ak seen mbokk seen xarit imam Aboubacar Mbodj di leen nuyu di leen ziyaar di ñaan borom bi tabaaraka wa taala yal na yàlla def ci réew mi jàmm yal na fi yàlla def juboo yal na fi yàlla def déggoo ñi faatu yal na yàlla jéggal leen yërëm leen xare leen àjjana te seeni famille mu may leen xolu muñ ah bu ko defee ñi feebar yal na yàlla saafara leen dal jàmm daal moom la ab jullit bu ñuy nuyoo sax danaan assalaamu aleykum bu ñu jullee bay sëlman ne asalaamu aleykum jàmm nag nit daf koy jéem a cultiver moo koy dund bu ko ku bëgg jàmm yàlla da ngay jàmmal nit ñi yàlla jàmmal la ñoo ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di nuyu mboolem spectateur yi nga xam ne ñoo téléspectateur yi doon seetaan seen télévision Safina TV di nuyu suñu technicien Samba si suñu sëriñ Thierno Hamidou Yoroban suñu directrice soxna ñuma di leen السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Thank